yooyu yëpp dafa nekk li xam te ni ay cause la lu mën a jur mauvaise haleine kon nag traitement bi yëpp lañ lay jox looy broso pour gémmiñ gi moo nekk ni buy dindi lépp li xam te ni day indi xetu gémmiñ comme ni ma ko waxee dafa am na nga xam te la ñenn ñi dañu am infection ñeenti sachet yi moo koy faj ci biir bi ay garab la ñu naan poudre la bio naturel ak li nga xamante ni moom lay àndal ndax nee naa leen mauvaise haleine dem na ba ci ay ngelaw seytaane seen biir day ballonné di rëy te loolu yëpp rek day doy waar xet yooyu day dem ba di feeñ ci sax ci bakkanu doomu aadama ni ki di ko nooyi kon garab ko soxla nga Dakar sen boutique univers bio arrêt de Balès Serigne Lamine barafal. mën nga ñu wo numéro yi ñu 77 160 93 93 77 160 93 93 wala mën ngeen ñu wo ci numéro bi di Touba Mahwa ci hôpitalu Fawzeni 76 283 98 69 76 283 98 69